tey moom du yomb maa la jaarale fa ma la daan jaarale. Hmm. Eh, yow sàcc rek ngay def. eh, eh dafa ndànk maa ngi siiwul yaa ngi tëb ñooy. lan lay tëb waaye dafa rek amul nga tey tey laa lay wan ni may gaynde gu mag gi. dañ dem yàgg naa laa di wut. Hmm, tey ngay xam ni may gaynde gu mag moom. waaw rek léegi euh, ma xool. dëy foo koy dox defal nànk rek naa ko dox fii laay def waaw. yi koy bàyyi de. waaw sàcc koy man tiitu ma man tiitu ma man tiitu ma rek. non yaa ngi tax ba affaire yaa ngi wodd nii defal nànk rek ko waaw. ndànk rek man du ma tiit du ma ragal. xam nga ni yow man gaynde gu mag laa mm-hmm. waaw. dalal rek je vais tuer cent fois dama lay dóor cent fois. da nga maa bëgg gën a mën yow eh, ma ah, bu ma jógee ba ma daan di xam ni bu baax. waaw léegi xaaral bu ñu jógee ci lii ba ma dàll di nga xam bu baax ni lan moo waral ah, ñuy jël policier ñuy jël jigéen ñi di leen yóbbu àll. aywa doxal. gaawal tuuti sama yaram dafa tàng. mooy yow baax rek laay def. tey lu ma am dalal dalal. 6-3. rek 6-3 voilà. Hmm, man moom du ma delluwaat moom. sëy bii moom du te bu ma kenn forcé la bu ma kenn forcé. voilà ah. taxawal pare. defal naa 6 1. waaw dama. waaw defal naa yaay dama dama. léegi. <laughs> yow Mbadou Mbadou ni nga ni nga ma devancé man maa la may nga gañe ma de. Ah, <laughs> man maa bëgg nga gañe rek. moo tax ma may la nga gañe. <laughs> yaakaar waaw dama ni xaaral. yow sa pion yëpp yóbbu naa ko. defal rek kon moo xool lu nekk fi benn ah yow yaa ngi bëgg ci mais bu fàtte bu fàtte jàpp naa sa pion de waaw aywa waa o oh, six waaw ah, ah, sama yaram nag fu mu gën a woo ah allo ah yii saa yi tey mënu maa génn fenn dem tey moom maa ngi nii toog si di non non non tey kay saway tey moom mënu maa am kenn mënu leen maa am mënu leen maa am damay joué ah bàyyi leen fii ñoom. waaye yaay mais xanaa gisoo leen ba. mais que sëy bi ah, maa ko jël waaw waaye gis nga fi mu toll nii laay toog. léegi yëf jeex. waaye yaay. suñu chéri am naa benn surprise bu mag a mag bu ma la war a wan. waaw waaye nag bu ma gañee wan la <laughs> soo ma gañee nag. doo gis dara doxal. Eh, da ne dama lay gagné rek. <laughs> loolu nga yaakaar. da ngaa xam ne dama lay gagné parce que gagné naa la ba noppi. loolu mooy yow sa pion yow xam ne gagné naa ma la wax rek. bu ma la la may nga <laughs> papa xanaa du yéen laay waxal am yéen da ma gisul. bu yeboo mu leer ne leen kër gii moom pare naa si man dootuma dellu sëy moom jeex na bu yeboo ngeen xam ko bu baax. ah. trois trois te ko mu mat. ma xool sàcc laay def. waaw mi ngi xool. six deux. Ah, allo. waa xoolal maa ngi jéggalu bu baax ndax fi mu toll nii maa ngi nii toog ak sama roi di d'accord dégg naa la bu baax a baax mais damaa bëgg rekk nga xam ni dangaa am jëkkër nga def ni man amal benn temps nga toog ak sa jëkkër di waxtaan ak moom ah loolu de laa lay diggal li may def man moom laa lay diggal ci soo ma déglu ah waa kon baax na waa may ma après dinaa la woowaat dégg nga amul benn problème waa d'accord ok chérie ok ok. waa mais est-ce que ñi xam nañ ne ñuy sëy ah hmm. ñoom mën daal sëy léegi dafa mel ni amul valeur quoi tur yi ma woo léegi ah di nga wax ma problème mu sëy ah kii ñëw aussi moom tam di woote. awa ah, de. li li tax mu bëgg maag moom ñu gisee xam naa ne problème mu jëkkëram la may wax te man nag dama parewul pour déglu problème mu jëkkëru jàmbur oh ndax man sama biir néegu sëy duma ko di wax kenn kon nag awma pour déglu keneen ci sëy na jéem nee naa ko nag na jéem a concentré wu ci sëyam te indi jàmm ah ah ah jàmm dafa neex de comme que maa ngi wax ak yéen sànq ba tey faale woo maa ngi dem sama néeg tëdd nelaw ma allo oui ça va ki aye garde laa bëgg mu envoyé ma ñaari agent léegi-léegi ndax sama kër dafa am ku fi nekk di ko lëmbe na ma ko yónnee léegi-léegi nañu ñëw moom lay xaar te bu ñu ñëwee nañ ko yóbbu garde à vue jusqu'à nouvel ordre ok. waaye yaay man nga bëgg a tëj lu man sa doom moo ne de sama moroom yaa fi nekk di divorcé te dara fekku leen ci lan moo tax lu wuteeg yeneen yaay laa xamul. oh waroon naa yor fetal bu chargé ak bal kii laa lay def nga tuur këpp hmm. te xamal lu ma la bëgg a xamal bëgg naa nga jël say bagages génn ca xaj. dégg nga la wax yow yaay li ngay def nii de waroo koo def xanaa balaa ngaa jël décision génn ma kër gi nga déglu ma li ma jëlee sa kër ga ba pare ngay soog a mën a wax. gis nga yow ma ak gis nga yow mag sa yaay dañ la mere trop trop trop trop. papa kii daf ma toroxaat man nag sëy bi moom mënatuma lan la la sa jëkkër def man maa sonn ci sëy bi te damaa bëgg a divorcer sax wax ji jeex tàq bu ko defee dinaa mën a jël sama bii en xam na laay def jaara pap waaw xanaa mën naa xam lan la la sa jëkkër def pap man si jëmu boppam man maa sonn ci sëy bi góor nag bu demee ba mënul yor këram kooku lan lay doyee jabar sëy boo xam ne coono rek nga nekkee yow boo soxlaa dara rek bala nga cee jot faa nga sonn loolu laa mënul di gérer kër goo xam ne dangay dee xiif loolu mënul continuer ñemewoo maa wax ni lekk ko démb ji xoolal rek deux francs la jox ak dëkk bu metti bii deux francs lan la mën man nag maa sonn loolu mënul continuer dangay wax ba sonn mu bëgg nga bëgg laa rek ay lay si lay yi laa sonn mënatuma eh, ay sëy xale léegi dafa mel ni daal àdduna bi dafa wëlbatiku eh. <laughs> Eh. yow da bëgg a wax ne sa jëkkër yu amul lu mu la yore xaalis bi nga yor pour lan la xaalis ban sama xaalis yaay nag yow yaay yow dangaa neex sama xaalis man ma jël ko di ko dépasser ndax góor pour lan sama xarit yi may àndal ñépp seen xaalis pour ñoom la seen jëkkër moo leen jël en charge loolu mooy yoon xalaat bu ñaaw boobu foo ko jëlee est-ce que dégg sa bopp papa yor bi ñu yor sama yaay ak ñun depuis ba ñu nekkee xale ba nii ñuy mu musuñoo màggee dara musuñoo am soxla si kenn léegi nag yow man lu tax man maritoowuma jëkkër joo xam ne moo may jël en charge fonk ma respecté ma tabe lu ma soxla mu defar ma ko yaa ngi réer nag dëgg la sa baay mi ngi ñuy toppatoo waaye nag dafa am lu làqatu ci suuf xamuleen ko sëy rekk jigéen toog di xaar góor génne ko ci ñàkk gis nga jigéen ju baax day tabax kër bu baaxul nag day tas kër jigéen ju baax day jox këram jàmm jim soxla ki baaxul nag ay jafe-jafe rekk ba mel ni cancer bu yax yow yaay lan nga bëgg a wax noonu dangaa bëgg a wax pour man ma yor ko man mënumaa yor benn góor sama xaalis pour man la mënuma koo bokk mënuma koo séddale kenn yow mbaa oto yu rafet yi ma gis ma koy dawal nii ak bi ngeen nekkee tout tànk ba ngeen dem université xam nga xaalis boobu fan la jóge xam naa ko kay loolu yépp yow la oto ba sama yaa mujjee yor sax yaa ko jëndal yaa ngi juum nag gis bi ma takkee sa dafa fekkoon ma nekk ci benn entreprise bu ma doon liggéey entreprise bi sax dafa mujj tëj ma nekk ci ay jafe-jafe nga sa yaay mii mbëggeelu ak cofeelam ci man taxoon na ba xaalis bi mu doon am yépp sama loxo bii la ko daan teg lu ma sa fayee sama loxo bii la ko daan teg ma ciy def lu ma neex di ci jënd lu ma neex te gis nga loolu yëpp kenn mësu koo xam te daf ko doon def ak mbégte kenn mësu koo xam ci ñun te kenn mësuñu ñëw àtte ñu xuloo mbaa nga àtte xeex lu ma ci def rek neex ma bëggoon nga dem góorgóorlu si sëy boobu ma bëggoon mbégte moom mu ci àndaloo doon ko def mais te yéen sax yéen mën ngeen a seede loolu ndax loolu yëpp ci seen kanam ma bëgg yéen yow nga roy ci loolu. yaay loolu dëgg la. yow déggoo ciy wax ma ni la jigéen ju baax day tabax kër te nag bu fàtte dañu laa yar yar gu mucc ayu c'est vrai que nag. àdduna jóg ak daanu la waaye ak mbëggeel day supporter lépp yéen daal nii ngeen bëgg a dund bëgg a noonu lalu góor boo leen jóge rek dem ci beneen lal astaghfirullah man kay maa ngi jéggalu ñi ma woode ñi ngi ñëw te xam naa ni sa cellule di nga fa mën a noppaliku bu baax te xalaat ci sa dund te yow sax sa jëkkër ba muy liggéey ndax daawul def lépp. yaay maa ngi jéggalu bu baax. waaw. yaay bett ngeen ma nag ci li ngeen ma xamalu li ngeen ma wax fii léegi waaye yaay ngir yàlla waxal waa polis ñu toog jarul ñuy ñëw man ci sama àdduna. waxi divorce dootuma ko waxati mukk mukk mukk lii yépp nag sama xarit yi ñoo ma ko yóbbee damaa bëgg nga xam ne fii ci àdduna ñaari kilifteef rek nga am benn bi mooy man mii ginnaaw bu ñu la mayee nga sëy beneen kilifa yi mooy sa borom kër yow ak lépp loo am da xam ne moom moo ko yilif yaa ngi dégg moo leen boole yilif yéen ñëpp boo demee nga góorgóorlu jógal. maa ngi jéggalu bu baax xalu xale kese moo ma jàppoon. gis naa sax man. te loolu moo tax maag sa papa. bi ñuy jënd cadeau mariage pour yéen ñu def ko ci turam sa jëkkër non ci sa tur ndaxte dañoo bëggoon nga xam ne mooy sa kilifa ba faaw nag mooy sa buur te bul mësa a xalaat lu ñagas walla nga di ko saaga bu yorul dara sax danga koo war a sagal te damaa bëgg na nga jël sa saag bii te nga ni mott ci sa sëy. li nga soo demee ba àgg na nga ko sukkal raam toog jéggal ko te xam ne moom mooy sa kilifa dégg nga li ma la